asalaamaaleykum mbokki internet BP Actu yi maa ngi leen di jëfal bu baax a baax di leen dalalaat jàmm tey mercredi 30 octobre 2019 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay ma ciy ànd comme d'habitude rek njaayeen bi Amina maa ngi lay bégg. bégg naa la Omar di bégg képp koo xamante ni yaa ngi ñu suivre saa su nekk seen site internet tey xaar suñu revue de presse. noonu la daal di demee nag dañu koy ubbee ak journal bu l'Observateur Amina Ndiaye mbirum terroriste daal la ñu xamal ni que américain am na lu ñu yónnee fii ci Dakar. waaw loolu la ñu mbëbët nee nañu ginnaaw ba terroriste yi nga xamante ne jamono ji ñoo ngi xaw a def ay menaces pour sécurité euh, Afrique ñoo ngi pour sécurité Sénégal bëgg nañu envoyé fii des cellules antiterroristes ci dakaar ngeen lan protéger ko parce que ñoom jàpp nañu euh, terroriste yi bu ñu laalee dakaar rek c'est fort probable ñoom ñu laal fële nare di États-Unis d'Amérique. daal ñoom jàpp nañu bu ñu amee dara ci Sénégal rek pour ñu am États-Unis day yomb torop moo tax ñu yónni ñu ay ndaw. waaw loolu de l'observateur xëy fësal bu ko defee nag ñu jàll ci li nga xamante ni moom moo xew fële na la ci Sisalek. li xew ci Sisalek maanaam batterie yooyu noonu ñuy dugal ci télé ci ci ci ci li mu tuddati si rajo yeeg ci yu bari dafa mel dañoo bëgg a tëj boobu le poste. waaw usine bi nga xamante ni moo di Suzelec jamono ji dafa am problème ginnaaw ki ko moomoon ba mu làkkoo ba mu gaañoo ba tey dañoo am problème mu héritage ba tax na nag 127 ci seen ay employés jamono yi ñuy wax ak yéen euh, ñoo ngi au chômage. ñii ñoo ngi di def ay jakarta fële na la ci Thiès ñeneen ñi nag ñoo ngi toog rek di xaar ginnaaw loolu nag tax na ñoom ñu décider ni dañuy def grève de la faim ngir lan ñu wax leen ñoom fa la ñu féete. grève de la faim bañ a lekk bañ a naan. bañ a lekk bañ a naan dafa metti nag nga xëy xëy rek ñun la liggéeyatoo. est-ce tamit duñu xool yeneen yi yeneen yeneen façon grève Amina Ndiaye grève de la faim metti na de. ah li leen ko yóbbee daal mooy problème mu bi nga xamante ne ñoom ba tey amaguñ ci accord seen biir. ab ndono nag moom daal di amee dañu koy war teg ci yoon ñu xool lu ñu koy lijjantee waaye mbirum 3 milliards yi naa Ndiaye mi ngi ci journal bi ba tey ci port de Dakar. 3 milliards yi nga xamante ni affaire drogue la drogue boo xamante ni yoon tegaat na ci loxo fële na la ci port de Dakar mu nekk nag 43 plaquettes euh, kilogramme cocaïne boo xamante ni ñoo ngi ko fekk ci oto oto boo xamante ni mi ngi woon ci benn park fii nii ci Dakar yoon tegaat na ci loxoom drogue bi yi bari na ci réew mi. noonu la demee Amina Ndiaye dorog bi bari na ci réew mi torop waaye li ëpp solo mooy yoon mi ngi def liggéeyam ba fu ñu ko dugalee ci réew mi wala ñu placé ko fenn ci réew mi ñoom dinañu def le tout ba gis ko daal di koy indi muy loo xamante ne nii liggéey bu doy waar la waaye journal ba yemu ci Amina Ndiaye mbirum ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Sikar mi nekkoon ci wetu soxna Aïda Diallo ginnaaw kàddu yi mu yëkkati woon ci le xalif général des Mourides yoon tegoon ko loxo fi mu toll nag dóor nañ ko mandat de dépôt. kàddu yi nga xamante ni moom maam Cheikh Sikar mi ngi ko doon weddi nee na kàddu yooyu nga xamante ni moo nekk ci ojo bi audio bi nga xamante ni mi ngi doon wax ay wax yi tegginewul jëmale ko ci kii nii di xalifa général des Mourides ba tax na yoon tegoon ko loxo ñu téye woon ko 72 heures garde à bi moom nag nee nañ placé nañ ko su mandat de dépôt instant yi ñuy wax ak yéen. Amina Ndiaye loolu day waree ni que Sénégal réewum diine la kilifa danga koy jox li mu moom kilifa danga koy jox li mu nga li mu yelloo waaye du dangay toog rek. lu la neex nga yëkkati ko di ko teg ci ndodd kilifa yi ñun kilifa yi rek la am. kilifa yi rek lañu am mais jamono ji comme que ñoo ngi naan dëgg la am du dëgg ñu bàyyi lekk yoon wéyal liggéeyam ba xoom bu fekkante ne moom la il va payer les bu fekkante ne du moom tamit ku ko def yoon dina ko teg loxo. noonu la daal di demee bu dee moom la itam dina ko xool bu dee du moom tamit yoon dina xool nan lay def ba xool ko. dañuy jàll nag Amina ci journal bi stade bi stade nag tey daf ñu indil suñu lionceaux U17 yi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a jogante ak Pays-Bas tey la ci 20 loolu la stade xëy fësal suñu lionceaux yi nag U17 ginnaaw bu ñu dooree waa États-Unis d'Amérique 4-1 tey jii nag ñoo ngi war a dajeek Pays-Bas à 20 ngir lan jongante huitième de finale bi nii ci coupe du monde. loolu mooy ay jaloore yi nga xamante ne xale def nañu ko bu yàggul seen diggante ak États-Unis ñu door leen 4-1 tey nag ñu war a dajeek Pays-Bas Amina Ndiaye mu mën a dugal nag ci histoire. parce que ay xale lañu yoo xamante ne ni seen ay bët dafa jël Afrique ñu ngi def ay jaloore yu am am solo ñu ngeen di ñaanal bonne continuation suñu borom yokku leen ba ñu yëg ko ñu daal di indi li nga xamante ne moom mooy trophée mondial bi ci réew mi. dañuy dem ci Espagne Amina Ndiaye fekk fa Lionel Messi ci Barcelone démb lañu doon joué ñoom i tamit dóor 5. équipe bi nga xamante ne moom mooy Valladolid waaw Omar jongante Barça ak Valladolid démb noonu la jeexee cinq 1 ak lan deux passes décisives et un doublé boo xamante ni euh, permettre na Barça jamono yi ñuy waxeeg ak mu nekk ci tettu championnat bi jamono yi daal Barça moo jëlagum euh, première grace à Messi. grâce à Messi équipe bi jël pay grâce à Messi équipe bi yàgg naa jël pay grace à Messi équipe bi yàgg naa jël kib comme équipe bi équipe bu Messi la Amina Ndiaye ndax équipe la boo xamante ne nii équipe bu suudale équipe bu yàgg tourné ci seen biir la. équipe bi yàgg tourné ci seen biir la bu ñu jeexee ci foofu nag dañuy ñëw fii nii senegal ci suñu équipe nationale bi nga xamante ni moo ngi war a jongante ak waa Congo le 13 novembre à Thiès. noonu la daal di demee Amina Ndiaye Sénégal ak Congo Thiès lay xewee ci capitale du rail réewum Lat Dior Ngoné Latyr Diop xale yi war faa dem nag jongante ji ku ne xam na ne réew bi ñuy jongantee réewum buur la woon réewum jàmbaar la woon ñoom nag bu ñu fa demee kon ay jëfinu jàmbaar rek la ñu fa war a jëfe ci boobu boobule réew Amina Ndiaye. loolu la stade xëy di fësal jongante bi nga xamante ne mi nga war a am ci diggante Sénégal ak Congo le 13 novembre fële na la ci cees nee nañu nag Aliou Cissé dina ci am ay jafe-jafe lool ndaxte équipe bi ni mu yaatoo ñëpp 5 dong ñoo ci disponible pour mën a bokk ci premier entraînement bi nga xamante ni moom sa kii Aliou Cissé dina ko amal muy kan Sadio Mané Maignan Edouard Mendy Lamine Gassama ak Krépin Diatta 5 titulaires yooyu dong ñoom ñooy sekk ñoom ñooy fekkee première séance d' bi pour lan jëm ci jongante bi. jongante bi dox seen diggante ak Congo. loolu la ñu journal bi indil muy ay xale yoo xamante ne ni seen disponibilité may na leen ñu fekkee ko mooy tur yi ngi fi lim yëpp ñoom Krépin Diatta ñoom mbay Niang ak Sadio ak ñeneen ci ay xale Amina Ndiaye mooy nag xam naa li ñuy gën a dem nag ñeneen ñi emploi du temps yi mën na changer d'ici le 13 moom mun mën ñu am ay effective boo xamante ne ni ñoom ñëpp dinañu déggoowaat seen biir ba ñëwaat ci normal dañuy jàll nag ci journal bu record njaayeen bi Amina record tamit bi ngi ñëw rek ba léegi ci match Sénégal ak Congo ci liste bi nga xamante ne ni moom la ñuy fësal jeudi incha allahu rabbi ki koy fësal nag di entraîneur bi Aliou Cissé ñu ngi bindal ci journalu record nag Mbaye Diagne oublié maanaam dañu ko fàtte ba léegi. mbay Mbaye Diagne match Sénégal Brésil tamit ci télé bi la ko seetaanee woon ndax demul woon tey nag nee nañu Mbaye Diagne du bokkaat ci liste bi nga xamante ne ñoom ñoo war a jongante ak waa Congo di match éliminatoire boo xamante ni ñëpp a ngi koy xaar mu war a mën a xewee fële na la ci Thiès stade la jox Omar. loolu mooy ay kàddu yu ñu bind ci journal bi ñu ngi xamal ko ni mbay jaañ moom du bokk ci boobu la compétition ñu dem ci làmb nag Amina Ndiaye ginnaaw Modou Lo Ama ñu ngi ciy am ay jafe ki nga xamante ne moom mooy promoteur bi ju Luc Nicolaï teg na plat benn moom doomu Réfane gi la indi borom takk ci rib Tapha Tine nangu na 80 millions. bu buur bañee làmbaay nangu comme que instant yi ñuy wax ak yéen moom Ama Baldé dafa toll ci bañ ñant diggante ay quatre vingt millions ak cent millions ci la toll te moom moo laa laajoon kii nii di Modou Lo euh, tey nag ko Nicolaï mi nga xamante ni moom euh, bu amul plan A rek day dem wuti plan B ñëw na ci Tapha Tine propose que lii nii di quatre-vingts million de francs CFA pour jogante ak roi des arènes bi Modou Lo te moom dafa mel ni nag nangu na. mu mel ne Tapha Tine nangu na quatre-vingts yi amaa nag moom cent lay xàccu. muy loo xamante ne ni accord la ñuy xaar ci ñaari camps yi parce que bu ñuy lire fan yëpp journal bi day mel ni Modou Lo moom il est ok. Modou Lo il yi Modou Lo amul benn problème parce que 140 millions de francs CFA lañ ko fayoon pour mu jangante at kii nii di Eumeu Sène keroog ba muy jël trone bi laajaatul sax lu bari 10 millions dong la ci yokk pour lan bëriwaat saison bi ak kii nii di Ama Baldé Modou ñu koy laaj bari na Ama Baldé am chance jël kii nii di Modou Lo mais jamono yi daal dafa mel ni Ama ci bañantu la toll. amaa ci bañoontu la toog ba tax na muy bañ ñi nga xamante ne mooy 80 millions di laaj 100 dinañ ci indiwaat ay yeneen leeral fii ay fan yu néew rek incha allah. waaye record tamit mu ngi ñëw ci Ama Balde Amina Ndiaye di ñëwaat ci combat Modou Lo bi saison 2019 2020 ñu ngi xamal Ama Balde premier VIP licencié. nit ñi ñooy bàyyi xel leneen mais Ama jamono ji moom mi ngi lijjanti boppam bu baax ginnaaw ba ñuy waxtaanee kombaam ak diggante kii nii di Modou Lo moom nag dafa gaaw wuti licence am licence am renouvelé waat na ko licence saison bi jamono ji mën nañ ni amaa moo nekk gu mbër bu ko yoragum. Ama Baldé mooy mooy premier VIP bu defar licence am ci làmb kon mu mel ni xale la boo xamante ne bëri rek la bëgg Amina naa ñu ngi wax Tapha Tine plan B plan mais damaa ragal plan bi sax moom mooy antu. ndaxte Ama xale la boo xamante ne la muy bëre la muy fecc la muy duy ci stade bi oh Amina Ndiaye bari na ay moroomam yoo xamante ne matewuñu yooyu yooyu capacité ci mbër waaye yemu ca record yemu fa Amina mi ngi wax ci VIP yi nga xamante ne ñu ngi ci làmb ji di taxawal seen ay combat sans pour autant seen ay écurie di ko yëg fekk combat boobu taxawul ba ñu am ay date écurie yi duñu ko yëg bañ ci fësal di ci def photo Balla Gaye numéro 2 Euh, photo Balla Gaye numéro 2 lañ ci taf mais nag ñoo ngi généraliser di wax ci VIP yëpp Balla Gaye Modou Lo Papa Sow Tapha Tine nee nañu léegi VIP yi daal dañoo yëw seen tànk bopp dañuy dox seen combat ba mu mat sëkk te duñ ci waxtaan nag seen waa staff ba tax na nag tafaa Gueye sax di wax ni combat Siteu ak Papa bi war a am moom ci presse bi la ko yëgee. loolu mooy ay kàddu Tapha Gueye nee na li Siteu ak Tapha Tapha Siteu ak Papa seen combat moom ci presse bi ko yëgee muy loo xamante ne lu doy parce que. Papa Sow Tafa Gueye moom mooy kilifaam ci écurie bu Fass Amina Ndiaye ñu xam ni écurie bu ne am na ay njiit am na ay kilifa dañuy dem di dégluwaat kilifa yi bu baax a baax a baax da ci am solo ñu jàllal nag ci consommé locale bi suñu làmb moom tamit écurie olympique de Ngor la ñu indil écurie boobu ci la boy bool nekk fëla Siteu bu Ngor nekk écurie boobu am nañu 6 combats 3 victoires benn nul la ñu am ak 2 défaites moom la ñu fësal eh, six combats trois victoires un nul benn défaite dafa nee ni nag ñoom euh, seen balance dafa daanoo dafa daanoo côté mais nag bu ñu góorgóorloo ci saison bi promoteurs yi bàyyi leen xel parce que xale yi am jom ñoo ngi ci biir écurie boobee. xale yu am jom ñoo ngi ci biir écurie yu boobu noonu waaye ba tey rek li nga xamante ne moom lañu journal yi presque yëpp indil moom la ñu indil rek muy combat Ama Baldé bi waroon ndox ak Modou Lo ñi ngi naan Ama Baldé li muy laaj daa bëreeg bëriwul waaye lu ñu ko laaj mi ngi ci wet gi moom it di dox plan B mi ngi négocier ak tafaatin la le yu du bu ci échoué rek ko Nicolaï jël caa ginnaaw Ama de mi ngi indi ay njuuñ daaj ci digganteem ak Modou Lo moom ko Nicolaï yàqu ko benn yoon dem na palan B palan B mooy kan tafaatin pour lan tëgg kombaam ak Modou mu nekk loo xamante ni nag ñun yaakaar nañ ni Tapha moom du ci am benn problème. non ay combat yoo xamante ne nii ay combat yu bees la Tapha Tine Modou Lo bu bees la Modou Lo Ama Baldé bees la moo tax bu taxawee rek. amateur yeeg nitu làmb yëpp dañuy daw parce que daf leen di neex Kafaatine nag moom mu mel ni nangu na 80 millions yi nga xamante ne nii moom la ko Luc Nicolas Enco bëgg fay pour mu jongante ak Modou Lo ci saison 2019 2020. waaye journal ba yemu fa Amina Ndiaye mi ngi xëy def jàngat ak ki nga xamante ne ni moom mooy père Ali di papaay papa Sow paa bi nag mi ngi wax ci li nga xamante ne ni moom la Fass di wax fa nepp ci journal bi ngir dàq papa Sow ci boobule écurie ku laal nen laal nga ginaar journal suñu làmb loolu la koy fësal kii nii di Aliou Sow nekk papay papa Sow mi nga xamante ni jamono yi yëpp ñoo ngi koy waxtaanee naan ba xam dinañ ko dàq fële na la ci faas am déet moom nag nee na euh, doomam papa Sow deful benn foot boo xamante ne war naa mën a tax ñu jëlee ko foofu noonu ci face mais nag mënta tere waa face dàq ko buñ ko bëggee dàq. loolu la ki nga xamante ne mooy papa Aliou Sow wax ci doomam papa Sow. moom daal jàpp na ni doom ji deful benn erreur boo xamante ne écurie Fass war nañ cee mën a taxaw ngir dàq ko wala ngir am lu ñu ko waxal waaye dañuy jàll nag ci yeneen actualité ci journal bi. ñu jàll nag ci tuus bi tuusu suñu làmb mi ngi ñuy indil doomu Double Less Sa Thiès lay wuyoo ñu ngi xamal ni mi ngi bëgg a rey boppam ci géej géej ci diin yi entraînement yi métti lay teg yaramam. entraînement yu métti lay teg yaramam ndax lan ginnaaw ba ko Boy Niang 2 daanee le 18 mars 2018 moom Sa Thiès jamono ji dafa bëgg a defaaraat carrière ba tax na nag foo ko fekk rek mu ngi ci saali di entraîner ci salle de musculation yi di defaraat yaramam bu baax tey xaar lan combat. tey xaar combat ginnaaw bi ko Boy Niang daanee fële ca arène nationale la woon Amina Ndiaye wala stade Léopold Sédar Senghor damaa juum Léopold Sédar Senghor loo bëri woon ak Boy Niang ab bëre ba am nu mu demee mu jëlee ci défaite boobu nag ba tey gisuñu Sa mu wàcc ci làmb ji mu ngi entraîné bu baax a baax a baax a baax di defaruwaat ngir waajal saison 2019 2020 ndax fi ñuy dégg ay moroomam Amina Ndiaye Sa Thiès dañ ko fa war a dégg ndax xale la waaye ba tey Modou Lo Ama Baldé mi ngi ci tuusu suñu làmb ji waaw li ñu doon wax rek dafa mel ni suñu làmb xëy na di ko dëggalaat naan arène bi dafa manqué waat ay VIP ay magum làmb ba tax na léegi euh, mag ñi nekk ci làmb yi ñoom ñooy dem di tasanteeg xale yi ku ci mel ni Modou mi nga xamante ne mi nga war a tasanteeg Ama Baldé Balla Gaye 2 ñu koy gisal kan di Boy Niang 2 làmb ji daal manqué na ba ay VIP ba tax na mag ñi nga xamante ne ñoo ngi ci euh, level yu mag yi dañoo mujjee obligé di wàññeeku waa di tasanteeg xale yi ngir mën a suuxal làmb loolu nag boo ko gisee naa Ndiaye ñoom ci kaw ñu ci barewul ñu ci barewul seen biir barewul ñoom ñëpp bëri nañu ay deux fois trois fois seen biir yoon la ñu may xale yu ndaw yi ñu ñëw bokk ci làmb ji ndaxte ñoom dañ leen mayoon sens ba ñu yegg si foofu ñu yegg si kon nañu may xale yi sens ñoom itamit ñu bëri ak ñoom seen biir. mais dëgg la bu ñu nee làmb ji mare manqué na ay VIP tamit dëgg la parce que jamono ji làmb ji ba amoon ay VIP yow Omar kon du ñu obligé xale yi du dugg ci cour des grands jamono ji bañ sax ñu leen di euh, jox ay kase ñu naan wii wala non. en tout cas daal Amina boo bëggee dégg dëgg bëy yi ñu ngi ci gétt nag yi. bëy yaa ngi ci gétt nag yi journal suñu làmb wax na ko. bëy yaaw koy loolu la journal ba pare fësal ko ci ginnaaw indil ñu chorégraphie. Ama Balde mi nga xamante ne février 17 février la woon 2018 stade Léopold Sédar Senghor kombaam ak Papa Sow la woon ci la ñëw bàqu lu neex indi caw sa xiir journal suñu làmb mi ngi tëjee tey journal bi ci kii nii di Ama Baldé bi nga xamante ni jamono jii mi ngi catu làmbin yëpp ndax lan combat bi nga xamante ni gisoon nañ ko comme mu taxaw ko ak Modou Lo ginnaaw loolu nag ñoo ngi ñuy wanaat talaawum fii ñii ci ginnaaw suñu làmb ay toucham ay bàkkoom di wane xale bi fan la mëne ak nan lay defee ku ko bëgg seetaan lekk da ngay jënd journalu suñu làmb boo ko dëppee di nga fekk Ama Baldé muy def ay touche yu Amina comme ni ma ko waxee ci Modou Lo démb Ama Baldé xale la boo xamante ne bu tuusee nga ni tuus la mën bu bëree nga ni bëre la mën bu xeexee nga ni xeex la mën waaye bu takkee ngeen ma waxuma lu bëre la mu njàpp wan la ginnaaw ba gone Pikine yi commencé yuuxu Ama yee Ama yee nga xam ni xale bi mbër la te doomi mbër la kuy sa bàyyi ñu ni Falaye Baldé rek doy na tiitar kuy sa mag ñu ne Jules Baldé doy na tiitar kuy sa mag ñu ne Pathé Baldé doy na foo dëkk ñu ne Pikine doy na tiitar Amina loolu ak mën a riiral stade amaaye ak mën a riiral stade boo taxee ba supporter yi di ko yuuxu noonu stade bi riir nga xam ne nag amaa ko jar tëggal làmb la boo ko defee rek nag ma yem ak yéen fii nii ci seen revue de presse bi di leen jox dig daje ba suba incha allah jaa ngeen demee wala sama papa Dul taxaw ba tey micro bi yuuxu amaaye mama foro de bal de bal na jërë mbokk yi suba ak jàmm incha allahu rabbi ci yeneen i leeral ci journal yëpp nag incha allah.